asalaamaaleykum euh, mbokk yi ñuy suivre euh, cette seen émission Thiéniere euh, ci seen chaîne préférée Sénégal TV tey seen mbokk Modou Fall pour waxtaan ak yéen ci thème d'actualité mu concerne Mandela Mandela mi nga xamante ni yalla dafa dogal mu génn le 5 décembre 2013 bi weesu ñu dañ profité pour def une émission boo xamante ni donc ci m'as la ñuy émission boobu li tax peut-être ñu choisir ko moi gis nañ ni euh, Mandela dafa dem ba nek modèle ci réewam dem ba nek modèle ci Afrique dem ba nek modèle aussi ci nit ku ñuul dem ba nek modèle ci aduna wërngal këpp donc ba tax na donc émission bi ñuy def euh dañ koy tuddé hommage à Mandela quelles leçons pour le Sénégal

bi ci njëkk mooy patriotisme ak xeex pour sa réew xeex pour euh, li nga xamante ni mooy àq ak yelleefu doomu aadama yi nekk sa réew nga xeex pour loolu euh, teggeeku ci ñoom nga xeex pour euh, dimbali libérer sa askan nga xeex pour libérer sa peuple nga xeex pour libérer sa race wala nga xeex pour libérer ñi nga xamante ni dañoo nekk ay néew di doole wala ñu leen di teg ay nattu waaw donc loolu mo tax mu euh, def prison ñaar fukki at ak juróom-ñaar te bimu mu li ci gëna doy war moy bimu démé ba jël pouvoir bi euh dafa woté euh, un gouvernement euh, d'union nationale loolu moy lan moy ñëpp ñi nga xamante doon nañ ko tek ay choono tek ko ay jafé jafé lu nekk ñu tuumaal ko bu xataal bu ne lu ne ñu tek ko ci kawam bimu mu def leen bal ñi nga xamante aussi dafa ñoo nekkon ci prison yi quelque soit couleur manam ñu doon wéx wala ñu doon nit ñu ñuul. donc ñoo ñëpp da leen mujj jéggal woo ñëpp ci euh, gouvernement d'union nationale boobu maanaam dafa apporter ñaari mbir yoo xam bu njëkk bi mooy le peuple beneen bi ci topp mooy le pardon le peuple bi bo gisee ñu wax ko mooy euh, Mandela bi ñëwé dafa choisir le peuple et non le pouvoir choisir le peuple moy bi ñëwé mëna mënoon choisir le pouvoir Bim, défé ben mandat de cinq ans mu continuer donc ba euh, ni day def deuxième mandat wala troisième mandat comme niñ koy gissé ci réew yu bare bare mais bim, défé ben mandat rek dafa libéré parce que mon pouvoir bi intéressé wu ko won liberté peuple moko intéressé won te peuple moko gënon intéressé lolu tax nit ñi naw ko ci ci lolu muy euh, jangat bu ñëk donc leçon biñ ci tiré moy gis nañ ni képp koo xamante ni nii da nga da nga roy ci Mandela wala képp koo xamante da nga nekk njiitu réew am nooy doxale war nga bàyyi xel ci comportement boobu Mandela am mooy choisir le peuple et non le pouvoir te choisir le peuple et non le pouvoir moo la mën a may lenn li ci àdduna parce que Mandela dafa dem ba dafa nekk un homme universel àdduna bi yëpp xam ko ñëpp jox ko cër ñëpp naw ko ci comportement boobu parce que li jiitu ci lim def mooy choisir le peuple et non le pouvoir donc leçon bu njëkk bi moy ñuy ñaan njiitu réew yi nga xamanteni ni ñoo nekk ci suñu réew yi ñen ñi def nañ 36 ans au pouvoir ñen ñi def 37 ans ñen ñi def 38 ans nañ bàyyi xel ni pouvoir mom nguur mom nguur Yalla rek dul jeex donc te nguur mom ñi tax nga tok fa muy askan wi ñooñu nga gëna wara war ke nguur bi ngay nguuru

pouvoir jox leen ay responsabilités pour réew mi am jàmm pour ñu mën a dund ci jàmm pour faire émerger l' Afrique du Sud te d' ailleurs gis nañ ni liggéey boobu mu liggéeyoon moo indi tey Afrique du Sud ci position mu nekk mu nekk un pays émergent nekk ci réew yi nga xamante ne ci gën a développé ci monde bi la bokk donc nekk ci réew yi réew presque yi raw presque ci ci ci Afrique choix bu njëkk boobu muy choix bu mujj boobu muy le muy le pardon

boo leen mënee woo liggéeyandoo ñoom mooy gën pour pourquoi mooy gën parce que mooy gën ci jàmm stabilité réew mi mooy gën aussi ci nga xamante ni moom lañ jox réew mi mu xam ni moom li ko intéressé mooy réew mi ko intéressé mooy faire émerger le pays te loolu mënul am lu dul réew mi dal am fa mënul am lu dul ñi nga xamante ni am nañ ay compétence avérées ci domaine yi nga xamante ne ni moom la réew mi soxla pour augmenter croissance am ñooñu mu woo leen liggéey ak ñoom donc ñu jàpp ni euh, fii ci Sénégal bu ñu jëlee exemple Sénégal jamono yii yëpp ay jafe am na fi ca jafe-jafe fi am ñaari mbir yi jàpp nañ ci ñi moo moo moo moo moo ko fi yokk indi bu njëkk bi mooy traque des biens mal beneen bi mooy le fait que aussi ñu réactiver euh, euh, euh, cours de répression et d'enrichissement illicite cour de répression et d'enrichissement illicite boobu ñu activé donc di topp nit ñoo xamante ne nii peut-être mënoon nañ leen a jariñoo ci côté développement di topp nit ñoo xamante ne nii liñ leen di toppee leerul xamaguñ ba xam ñoo ko def ñoo wala defuñu ko ñu tëj leen ci kaso yi wala traque des biens mal acquis bi nga xamante ne nii képp kuñ gis nga yor alal rek dañ lay teg tuuma ne la justifier fi nga jëlee sa alal loolu lépp day indi instabilité te yaakaar naa ne bu yàlla dogalee nga jël euh, réew jële ko ci peut-être condition yo xamanteni ni ñu bari japp nañ ni condition yu difficile la bo ñëwé da nga wara wo ñëpp indi jamm d'ailleurs leçon bi nga xamanteni mom moom lañ tiré ci euh, discoursu Mandela bobu le 10 mai 1994 moy wax ni ma ngi wo ñëpp sama engagement bu njëkk moy ñi nga xam dañ leen tëj ci kasso yi ñu yag fa tool nañ xol nañ leen gracier ñu ñëw delu ci wat donc kenn ku ci nekk xol lu mëna jarigni jariñi réew mi pour ñu euh, faire émerger notre pays donc loolu aussi ñu avons ni njiitu réew mi Macky Sall la war parce que c'est la deuxième leçon bi donc deuxième leçon bi mooy xelam da ko focaliser ci ben objectif rek lañ am faire sortir le Sénégal notre pays de cette situation là et la mener vers l'émergence Donc nous mënul am lu dul ñaari leçon yi ñu fi wax nga de façon simple et basique Tirer nañ ko ci jàngat ci contribution yi ci hommage à Nelson Mandela tiré nañ ko aussi ci jangat ci dund mom Nelson Mandela tiré ko aussi ci jangat ci histoire li mu ci mag ñi fi jot jaar kenn ku ci nek da doon le pardon ak askan wi nga xamanteni ñoo la fa téye mu donné sëriñ la ay bu donné président de la république aussi peuple di baale di djéggelé parce que am réew kenn mënu ko défar ci bundu xataal ay nit am réew kenn mënu ko défar ci instabilité donc lolo tax nak ci teunk pour terminer sen émission Thiéniere nga xamanteni tay

boo xoolee donc leçon bu njëkk bi mooy bu ko rappeler mooy il faut toujours choisir le peuple et non le pouvoir leçon bi ci top aussi moi, il faut savoir pardonner il faut savoir rassembler il faut savoir unir donc pour faire émerger un pays donc loolu mooy li nga xamante ni moom lañ ñëwoon pour waxtaan ak yéen ci Sen émission Thiéniere ñu remercier ñëpp ñi nga xamante intervenir nañ ci côté réalisation bi montage bi ak lépp luy tourner ak son beeg donc di leen jox daje ba beneen yoon alaikum wa rahmatullah wa taala wa barakaatu.